alhamdulilahi rabbil aalamiina wassalaatu wassalaamu ala sayyidina wa mawlaana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man waalaa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateur yu 2STV yi ne ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ngeen mën a ne di ànd ak seen télévision la 2STV waaye di ànd seen rajo origine FM 88 point 4. del soit nañu yéen seen jotaayu daara ji ñu tuddee tafsirul quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ñu leen di waat bu baax di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def ñu dëggi dëggi jullit waaye di ko ñaan rek su ne ko daan ñaan yàlla nañu bàyyi suñu muy rafet ba bu ñu demee mu kontaan ci ñun ñu kontaan ci moom moom borom ñàkk sikk amul ni mënuñoo ba a bëgg ci suñu borom suñu góor góorgóorlu mu ni kon ñu ngi yéen seen saar bu am solo bi di suuratul waaqia saar bii ma leen waxoon ni te yéen ngi koy commencé gis ñu xoolee bind bii passé yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon naan ku bëgg di doxantu ci mbeddi àjjana yi dil jàng suratul waaqia moom moom day dugg ci àjjana ya day dugg ci béréb yu am solo ya nag ca biir àjjana day dugg bu baax a baax a baax te loolu dafa am solo bi ñu fi jógee mu ngi woon ci di wax gaa yeeg àjjana ji ñi am bokkoon na ca la mu jeexale woon keroog nii ndaw yi leen di servir boisson ak yi ñuy soxla nee na boisson boo xamante ni sàngara la joo xamante ni soo ko jëlee doo màndi laa yi saddaxoona xam ne seen bopp du ca mettee du ca rëngi-rëngee te it du doon ñoo xamante ni dañ koy jël di màndi mu pare ci loolu ñëw nii la wa fakihatin mimma yataxayaruun allahu akbar wa fakihatin mimma yataxayaruun gis nga àjjana na na naan naan nga na mu neexe noonu la lekk nga neexe di waaw mu ne la seen seen foyteef yi maanaam meññent maanaam fruit yi ñu fay jël nee na ci sa choix lay seen lay aju maanaam lañu ñu taamu rek la ñu bëgg lool la leen di jox ci fruit nee na ñooy tànn de waaw yenn saa yi nga ñëw ñu bëgg la indil ay pomme nga noo tey salade de fruit laa bëgg de tey moom dama bëgg ñu defal ma ko salade de ok indil la recette yi bii bii ñëw dañ la koy présenté tey kat nii la ni ngay gisee ñëw ci hôtel ñëw ci resto bu mag te dégg ñu ni euh, kii saytu wàllu togg day ñëw wax tey lan la fas yéene indil nit ñi ci lekk danga koy gis sax ci avion yi ah, tey de service bi nee lii lañ leen di indil ci añ bi wala lii lañ lii ñu leen di indil nag lii ak lii ak lii lii mooy recette lii ak lii ak lii lay jëriñ macha allah am ah, mbokk yi yi ngay gis fii yëpp li ci gën a bakkane xamal nii da dee ko dee ko xay dee ko la ngay war a am fii waaye nag y a photo comme ni ko ivoirien yi di waxee mënul am de déedéet boo yeggee foofu xam ni bokkul bokkul jege yoowul déedéet nee kon dañ lay jox loolu yenn saa yi ñu bëgg laa indi salade de fruits non non tey moom tey ay banaan rek laa bëgg ñu ni d'accord yow li nga bëgg rek mooy fàcceetu mi maa yota xëy nee na mais ñeent maanaam fruit yi yàlla fay jox mooy yë bëgg waaw tey nag li tax ñun la mi maa ay xëy yarun da lay wane ay dafa am ay xeeti fruit ndax bu fekkente ni bii moo fi am da ngay ñëw yéen seen yenn nit di séddale boisson ko ci man de bii laa bëggoon mun la boobu jeex na fi nag amul lool ji joxe ay fruits ñu indil la bi ngeen est-ce que lee amu fi si moom boo nee li am am amul loo fa dul am amul boo fa dul am yow bëgg a bëgg rek booba mooy ñëw moom ngay am ah, kon mu ngi commencé neex de mun la waaw su ma jëlee fruit ba pare nag mu ni wa laxmi mi mimma yashtahun picc yëpp yàpp picc woo xamante boo xamante ni ba nga ceeb bëgg mooy ñëw nee na boo xalaatee benn rek te di su ma amoon ay pigeon yu ñu defar defar bu baax day jékki-jékki rek nga gis pigeon yi di di di naaw ba yegsi si yow bu ñu yegsi rek pare nañu nag bien fait ñor nañu moom prêt à prêt à manger lay doon bu dee noonu lañ ko laa laa ko bëgg a samay français bopp nag waaw jël leen rek te nangu kon moom ex indil nañ la ko rek nga nga nga lépp ay pare waaw nekkul loo xamante ni de Abdou Abbas nee na nit ki day xalaat dara rek ci yàpp ñam yàpp picc loolu ñëw ba ci moom dikkee na mu war a dikkee mel ni bu dee mis wi lu ñu bu dee mis wi nga bëgg mu dikkee noonu ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee rek te xadis ba ni kenn ci yéen dina xool benn picc ci àjjana bëgg ko picc mi ñëw ci kanamam mel na mu war a mel ni ko loo bëgg defal bokkul ak picc yi nga xam ne da nga leen di ut jub rek ñu daw xam ni nara loo leen jàmm waaw ñeen ñoom ba nga leen bëggee ñoom ñoo ñëw ni la ñun pare nañu pour nga xéwlu ah mbokk yi neex na de neex na de waaw mu ni kon wa laxmi taydin mimma yashtahun ci boroom xam-xam yi dañuy wax nii lu tax mu jiital faakiha soog cee teg laxm tayr am na ñoo xam dañ ni normalement sax nit noonu la war a organiser alimentation ci lekkam bul ñëw rek comme ñun dañuy taam lekk ba pare ni in ana dessert ñu indi am na ñoo xam dañu jàpp ni da nga war a jiital say fruit ba pare soo see teg ñam waaye ñii ñoom lu tax ñu defal leen lii dañ lay xamal ni la lekkuñu sax ngir xiif dafa mel ni rek lu ñuy lu ñuy lu ñuy genre amise amis gël li ñu koy waxee rek loolu la ci ñoom lu ñuy fowee rek di ci kii moo tax yenn saa yi ñu ñu wax oh, tey daal picc mu ñëw tey daal xar mu ñu mis fii daal ay crevette daal li ko xalaatee rek noonu lañ la koy indile na mu doone wa faakiyatun mimmaa yataxayyaruun noonu la doone wa laxmi tayrin mimmaa yashtahuun waaw la nga bëgg rek da nga rek bëgg ko loolu lan lay indil waaw waaw lekkoo nag ngir xiif da ngay lekk rek ngir pour te plaisir loolu lan la fay defaat loolu mu ngi neex de mun na yemu du jeex jeexul de wa xuurun iin jigéen ñu rafet lool te bëtu lool xam nga bët day génne taaru jigéen nit bokk na ci li koy dimbali mooy ah ci taar ñu ne am ah, moom de am na bët eh, ba ñu sew lool ba mel ni saa yoo yi nag ma yeb wax ma ci lu ne ma ne ah waxu leen ma de yàlla yàlla ngeen di wax wax dëgg yàlla leen ma waaw leen ci neex ak leen ci naqari daal seen borom ngeen koy wax ma ci kenn sonal ah mbokk yi gis nga mun la jigéen ñooñu dañuy rafet ba pare am ay bët rafet lool bët yoo xamante ni boo ko xoolee rëyaay ba muy rëy du ni kat goitre moo ko def ci ñoom déedéet di seen bët yi ubbeekoo du du feebar bu nekk ci ñoom ba seen bët mel noonu waaye bët yaa rafete noonu nee na ñu nga fa de waaw kam saali lu lu il makkudo nee na dañoo mel ni wurus wurus bu ñu tëj ci benn bërëb maanaam wurus bu génnee ni muy nekkee ci xor bi maanaam liñ koy tëjee nee na avant ñu koy tëjji boo ko tiggéey xam ni benn loxo laalagu ko ni muy taaroo nee jigéen ñi noonu la ñuy mel comme ay la noonu la ñuy mel jigéen àjjana yi ah waaw yàlla waaw na set lool rafet lool di xeeñ xet gu neex nag macha allah ñun la ñu yëpp day bii day loxo mosu koo laal de kenn mosu koo jege lii nag say mbir la yéen lañ ko jox macha allah mu salama ba mu laajee yeneen bi ñu ñooy misaale mun kaa ñoom daal seen si mu la ko doon misaal daal seenuk set seenuk leer seenuk taar day mel ni rek benn wurus bu ñu tëj ci benn béréb nga xam ni benn loxo laalagu ko bi muy mel nee na noonu la ñu mel xam nga bu ko loxo laalee da koy taqal mën na mën na ci def bàyyi lo jeexital loxoom ak yooyu yëpp mun ko ñi nag kenn mosu leen a jege kenn mosu leen ah yàlla yàlla xéewal yi bari na de yàlla àjjana gii nga ñu jox sàngara su neex si ñu ñu fay servir lal yu bakkane yooyu ñu fay am yàlla teraanga yooyu yëpp doyul nga joxaat ñu ay fruits yu dul jeex yàlla ba léegi doyul nga jox ñu ay ay ay ginaar wala ay pigeon ay picc yu am solo yu neex ci jëfandikoo yàlla ñu defee ni loolu lépp doy na nga jox ñu fa suñu jéeg yu pare yoo xam ne ñoom nekkuñu fa nga naan ñii kat jéeg lañ yoo xamante ni ay jabar lañ yoo xamante ni danga leen di war a defaraat ñoom dañoo pare soxla ca def dara doon xaaral ma dimbali sama jabar ji ngir mu gën a rafet ak naa ko jëndal mbubb mu mel nii ak naa ko wutal takkaay bu mel ni ñoom pare nañu yooyu nga bëgg yëpp boo leen xoolee gis ko ci ñoom gis ko ci ñoom waaw it nag bu ma nee doo doo dooni sax jekk déedéet parce que ñoom ay jànq yu lay indil la yoo xamante ni kenn musu leen nag kenn musula seq ak ñoom dara waaye pare dañ ci lépp pour yow ah yàlla nee na loolu ngeen di am foofu de yàlla lii moom lu ñu def ba war a am lu mën na jaza am bi ma kaanu yaamaluuna kon jëf am na solo nit day jéem di jëf mu ni fay la ci yéen ci sababu jëf ji ngeen jëf manaam jëf ji mooy sabab bi waaye man maa ci sukkandiku ci sama mbaax dollil leen ci ay nit day jéem dara waaye ni laaj jéemoo dara jëfoo dara sa digganteeg sa borom ba pare di yaakaar àjjana góor nga nee naa moom de yéem na ko lool boo xam ne mu nga yaakaar àjjana yàlla ji ba pare dëkk ci ay nelaw ak i caaxaan ak i font dina loolu boo naxul xoolal naxoo kenn ku dul sa loolu boo ko gëmee yow yëgal ni naxoo kenn ku dul sa bopp mu ni kon maa leen ko fayee ci jëf di ngeen doon jëf bu julli jotee ngeen di julli ngir man di woor ngir man di génne azaka ngir man di jàng alquran ngir man di sarax nit ñi di leen dimbali ngir man seen muamalaat seen jëflanteeg nit ñi ngeen koy def ngir man du ngeen lor benn dëkkandoo ngir man xam ni wayjur jur la ngeen jox ko àqu jur ngir man xam ni soxna soxna la nga maandu seeni diggante yor leen yor bu baax ngir man nga xam ni borom kër borom kër la nga jox ko cër bi nga ko war a jox ngir man nga xam ni liggéey bii ñu lay liggéey lool la liggéey gor daf ko war a def nga cay def la mu gën a selle <coughs> di ko def na mu gën a baaxe ngir man di def toppatoo say doom sa kémtalaayu kàttan ngir man lépp lu baax nga koy wax ngir man sa jëf yëpp daal nga koy def ngir man kon am bi bimaa kaanu yaamaluun lii seen fay la ci jëf yu rafet yi ñu doon ah yàlla neex na de mu ni kaay leen nag ma waxati leen fi ngeen di nekk noonu dafa calme de nee na dafa calme amul coow loo xamante ni yenn saa yi nit nan xaaral ma dem cité diwti cité sax léegi ah moom da ngay waaru nekk fii ci lëmpal bi nga xam ne coow lu dul jeex ko ñu baadoole yi xaaral man bu ma jekkee commencé naan si ay damay doon ab zone yoo xamante ni zone résidentielle yi lay doon xam ni foofu boo fa dëkkee kenn du la déranger yaa sa petite famille yéen fay ne keneen nekk fa loolu kenn ku ne yor nga sa lépp kenn du déranger kenn mu doon cité bu calme laay wër cité bu calme àjjana la am ma wax la loolu nga noppalu it yàgg naa wax cité bu calme ba dem ci cité ba mu yaakaar ni calme na waaye ba mu demee xam ne nekk te yow oh, noonu de liy calmeloo nit du ci ay nit ñu bari ak ay nit ñu néew waaye tranquillité d'esprit ngay am sa fii mooy mooy dal loolu nag moo am foofu doo fa dégg ay waxi mbóosóor doo fa dégg waxi ñàkk fayda doo fa dégg wax yu ñàkk xorom yooyu amul foofu mu ni laa yasmauna fiha laxwan wala tathima nee na ñoom day foofa day duñ fa dégg am fo déedéet duñ fa dégg ay waxi fo yi ni waaye duñ fa dégg wax juy jur bàkkaar ay saaga koñ boo xam ni ay saagakat yu bon ñoo fa ne yooyu di saaga nit ñi rek réew ba dof loolu nag yàlla nañ ci yàlla musa te nag am na koñ boo xamante ni nag moom ku nam mi saaga léegi dem fa kay la ko du jàll am na koñ boo xam ni soo nammee ay saaga rek dugg fa mooy koñ bii ñuy wax les réseaux sociaux saaga rek la fa la fa nit ñi nekk nag loolu kenn amul ci droit kenn amul droit saaga nit ñi kenn amul droit xas nit ñi amul droit xeeb nit ñi yooyu yëpp lislaam bëgg ko lislaam bëgg ko yëpp dafa am léegi ci suñu société boo gisee fi firee bis benn xadis mooy xadis bi yonent bi naan iyaakum fi turuqaat saxaaba yi ni ko qaalu ya rasulallahi ma lana min majalisina buddun nataxaddasa fiha qaala fa ida abaytum illa almajlis fa aatu tariqa xaqa qaalu wa maa xaqu tariqi ya rasulallah qaala gaddu albasari wa kafu aladaa wa raddu alsalaami walamru bilmaarufi wannahyu an almunkar xadis bii nag muttafaqun aley yépp ci d'accord Buxaari ak Muslim yépp d'accord nañ ak yeneen ñu dul ñoom sax nag ma ne leen bàyyi leen di toog ci mbeddu réseaux sociaux yi rombale naa ko mbedd yii fekkente nag bu loxo nga non ma mënu ma ci bañ a ne parce que sama activité yëpp il faut man ma yor sama machine il faut yor sama téléphone il faut may dugg ci sama kon il faut may xool lan la am ci ay kii lu ne nga wax ko il faut ma liggéey ci lii il faut ma def ci lii samay njaay ci laa koy kii publier pour ñu mën ko gis sama lii lu ne nga ni moom ngay doyee mbedd moomu di mbeddu réseau sociaux moo tax faaw ma fay toog ah yonent bi nii la ah boo lankee rek ni faaw nga toog fa na nga respecté charte yi ñuy toogee ci mbeddum réseaux sociaux ah noonu fay toogee yonent bi ni la xaddul basari bul def fu ne nga dugg fa fu ne loo gis rek kiliki dugg ci yu bon di ko xool ah mboytul mbedd moomu de dafa bari tarxiis de bu fa def bu fa dem bu fa taxawaa dindi lor yu ci ne lépp loo xamante ni gis nga ni kat su ko njaboot gisee mën na doon lu bon luy lore dindi ko waaw dindi ko sa téléphone léegi may na la ci sa téléphone ndax xale yi foo fekk léegi dañuy jël seen téléphone way jur yi nga am fu ñuy mën a yem ba am fu ñu xam ni foo xam ne duñ fa sax mën a taxawaalu ba fa yegg bari na lu naqarin ci téléphone ah moo ko teg boppam de ni la woon xabdul basari dammal sa xef dammoo sa xef yow nga lànk di xool yu bon yooyu nag ngay xool mooy xëy bis rek du dugg foo xamante ni boo defoon kaful aza loolu du ci am wala sa doom yor sa téléphone dugal leen leen lu bon loo xam ne dafa ne ndax boo fa newuloon du ko fa mën a dugal jël ko xamul lu xew mu dugg ci benn groupe ngay jooye ka gañña ka fekk ni yaa ko teg sa bopp wa raddu salaami nee del nuyoo gis ba nuyoo fay ko nag nekk ko naan sàlli ay kenn xamul yooyu asalaamualeykum boo ko mënul nga ni salaam walla ful la nuyoo nga fay nuyoo bi fayal nuyoo waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu wal amru bil maarufi nee na mbedd moomat boo fa nekkee tere bu boo dee doo fa jóget del digle lu baax de del fexe yow ba réseaux sociaux yi nga ciy liggéey lu baax loo xamante ni day jëriñ àdduna di jëriñ képp koo xamante ni imaanam baax wan nahyu anil munkari day fa tere lu bon waaw ni mu amee ñu fay digle lu bon di fa tere lu baax yow fexeel bokk ci ñi fay digle lu baax di fa tere lu bon kon mbokk yi ma dellu siwaat loolu benn parenthèse la woon rek mu ni laa yasmauna fiha lagwan duñ fa dégg ay waxi mbóosóor yu ñàkk bopp yooyu wala man duñ fa déggit ay saaga waaye yow jël ci cërëm ci réseaux sociaux yi dégg fay saaga ba pare di ko di ko partagé déglul saaga yu mu saaga daa leen deux mille deux mille xeeti saaga yi dékk ci réew mi moom ñoon maam xam naa bu leen yee te at mu jot nag at mu jot dañ koy ni ñu ni ni ñuy def ci téléphone di ko di réinitialiser dafa mel ni léegi dañuy dañuy génne saaga yu bees mag ñeeg xale yi réew ba dof ah, di wër saaga saaga yu bon yu ñaaw yoo xamante ni am na ñoom dañ daan la lii de mosuñu ko dégg ca ñoon maam sax léegi yooyu la ñuy mu ni wax yoo xamante ni wax yu ñaaw yuy jur bàkkaar muy ay kàcc wala ay saaga nee na wala taqsiman doo ko fa dégg doo fa dégg wax joo xamante ni day jur bàkkaar dégg gi nga koy dégg illa qiilan salaaman salaaman nee na foofu salaaman salaaman nga fay dégg moom daal la nga fay dégg mooy jàmm ci yow jàmm ci yow mbégte ci yow mbégte ci yow teraanga ci yow teraanga ci yow loolu nga fay dégg jàmm rek nga fay dégg doo fa dégg leneen lu dul jàmm nee lii lépp nag nee na ko gis ci gaa ñi nga xamante ni ñoo jëm ñooy lii lii mu lay limal boobu ba léegi nag bi nga xamante ni ñu ko moom mooy almuqarrabuuna bi mu la waxoon mooy assaabiquuna assaabiquuna ulaika almuqarrabuun lépp ñoom ñoo ko moom mu ñëw ci ñeneen mu ne wa asxaabul yamin yi ma asxaabul yamin mu ni moo ndax neen mu ne gaa yi nga xam ne ñooy ñitti ndeyjoor ya moo ndax duma la waxaat ñitti ndeyjoor ya waxoon na la ko fee de ba nga yaakaar ni dala koy wax waxu la ko woon bi yoon nag mu waxaat la ko ba nga déglu mu commencé nag di la wax bi moom yoon moom ni mu la ko waxee ndax du ma la ko wax ba nga ni ko ah la ko commencé waxal la ñoo ñooy ñan mun la ñoom de fii max maxduud dañuy nekk ci àjjana am fa tool yoo xamante ni day am siddéem ay gar doomi garab siddéem yoo xamante ni nag xam nga garab siddéem lu doomi si dem ya neex neex neex neex dëgg ya ca dekk di jamaate dina tax moom yenn saa yi kenn du ci kenn kenn du ca sawar waaye njariñ su ndaw soosu rek tax nit ñi di ko wër bi gis nga nit dangay jéem a am njariñ si li muy ñàkk ñàkk solo ci tuutaay boobu noonu ak ci dëggam gaa yi dañ koy jéem a affronté di ndax lan njariñ la ca nekk lool ñuy mos jaral na leen ko waaw nijaay ju baax ji macha allah alxaaji njaay sa njaay moo koy wax nee na nit dafay am njariñ nee na mu ngi nii tege kenn du ko laal waaye nee na gis nga si déem li muy ndaw ndaw gars yi ci jéem a uti ndax lool loola njariñ la cey mos rek du ma leen ko jaral ma ziyaare ko bu baax a baax a baax njaay di tàggkatu yonent bi bu ñu ràññee ci moom cheikhul xadim waaye macha allah yaa sey suñu nijaay jooju yàlla nañ ko yàlla fayal baat bi neex lool bu la noddalee rek dootoon na mati màkk macha allah te nag yu na bi uka mislu xabir loolu de wóor na ma li may wax ci moom ak maa wóor waaw ndax dama ko expérimenté ak moom yàlla ko yàlla fayal ma ziyaare njabootam yépp nag macha allah Modou Ndiaye ma ziyaar ko macha allah Modou Ndiaye ñu ngi koy ziyaare macha allah bu ma jëlee mu fay sama nijaay waaye bu ma jëlee yaay ji fay sama jarbat ba yàlla na ko yàlla xare àjjana sax man day mbay ma ziyaare ko nag moom it ziyaare waa prestige yépp nag ndeysaan nga xam ni fa lay yëngatoo mbokk yi njariña ngoog mu ni ñoom de siddeem yi ñuy am dañuy damm dëgg yi mooy fii sidrin max duudin nee na dëgg ya cay nekk dañ koy damm de dañ koy damm moo tax arab ba ba ñëwee kaw kaw arab ba ñëw ci yonent bi ah yow yaa dégg naa ne ngeen àjjana am na garabu siddéem a ah, siddéem day lore mun ko xanaa déggoo la yàlla wax maxduudin la wax di nee na dañ koy damm dañuy damm euh, dëgg ya ba du lor kenn waaw boobu moom du lore moom buy lore dafa fekk mu ne ko mu ne dañ koy damm waaye palaasu su fépp fu dëgg waroon a nekk sax meññent moo fay ne ay doomi siddéem a fay nekk nag bokkul ak siddeem yi de te bu ci nekk nag la mu fay am la fa nekk ci ay variété siddeem ëpp na soixante douze boo ci mos rek ni mbir bi bokkul ak bu sànq bi waaw mu ne da yamul foofu de jii mu lay wax nag mooy deuxième deuxième groupe bi de mooy asxaabul yamin ñee moom wax na la seeni àjjana mu ne wa talxin mamduudin mu ne it dañ fay am ay garab yoo xamante ni dafay bari meññeef neen ñenn sax nee nañ ay ay ay banaana lay doon waaye yu ñu rënkale garabu gis nga banaana ni muy mel ni doom yi di baree noonu man am na ñoo xam dañ ne talax moom garab rek lay doon yu fa nekk yoo xamante ni moom doom ya ca ne moom dañuy rënkali ko bu baax a baax kaw ba suuf fees dell nga gis garabu banaana ah banaana nga gis ko mu fees dell dell ak i doom nee noonu la boobu di mel moom mënoo ko jeexal moom it kaw ba suuf mu tegat ci ni la wa dhillim mamduudin <coughs> ker ker ga fa nekkin nag ker ga fa nekk ker gu ñu tàllal la tàllal ko lool ba doo gis naaj foofu moom amul naaj foofu wolof nee na kuy jaay naaj kuy jaay ker bu jant bi soowee nga lambale yor su buntu kër rek mu am benn taatu garab en tout cas fii moom bala fii nit a toog dafa dina fay ba jant so kenn du la fay dërëm ndax kenn dootul soxla sa ker yàlla na keram gi moom li tax mu neex mooy yow ma laa zilla illaa zilluhu la waaw bii ci àjjana nag moom dafa da gën a neex moom moom dañ koo tàlla rek waaw moom fépp ker la luha daa imun wa zilluha waxoon na la ko bu ko fàtte mu ni loolu it moo fay am wa zillin mamdud waaye wa maa in maskuub ak ndox moo xamante ni moom day xellee ko rek di teekoo rek te du taxaw nag waaw ndox boo xamante di laa yanqati du dog waaw wa maa in maskuubin dafa am ci àjjana doo doo ubbi robinet bi ba seeg nan yow ñu tëjët ma boobu ci suuf ndax bii mën a xelli bi ci kaw day da loolu amu fa waaw te nee na kenn la indil facture kenn du la indil dara doo fa nekk di sakkanal ndox di leen yàq ndox rek ngeen fi nekkee loolu fii la ku dem fee amatoo problème boobu wa maa in maskuubin waaw waaw mu ni it loolu ngeen fay am ndox ma di sotteeku doon ndox mu sell ndox mu leer ndox mu neex boo ci naan kontaan boo ci sangu léegi moom daal ndox ma daal day day xelli rek nag di dem waaw nekkul luy taxaw ndax ragaluñu facture foofu mu ni wa faakihatin kathira ba léegi pareegul di mu ni am nga fa it bari bari bari xeeti xeeti fruit yu bari te li ci gën a neex mooy laa maqtuatin du dog wala mamnuate kenn du ko tere waaw ah du xoolal du du du fruit saisonnier xam nga yéen sax fan yi nii ñu toll nii nii nii gis nga ni xaal bale foo romb ci dëkk bi xaal yaa nga fa fees del del del del del waaye fi mu toll dañuy dem ba si dootul am ñu ne orange a xew dem ba si yàgg déedéet ma mango xew noonu lay doon ay fruits saisonniers mais bii nag moom nee na laa maqtuatin wala mamnua du dog mukk doo du doon fruits saisonniers moom éternellement dafay ne waaye wala mamnua kenn du ko tere li tax ñu koy tere fruits saisonniers la ñuy tere yor sa garabu mango toog ci yor sa yer naan ba benn xale kii fi di ko garder di ko surveiller ndax xam nga ni léegi mu jeex waaye bee nag moom du dog te bokk jullit yi ah mu ngi neex de waaye nag waxtu yi jeex na kon nag tegaat del foofu seen baaraam moom nag ñëw na ba laa maqtuwaatin wala mamnuuha pareegul de neex neex yi foofu jeexagul de bu ñëwee dellu siwaat si rek incha allah mu gën di neex rek koo koy ajjanay borom bi allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaaba wala tajcalna multabisan fiina wajcalna lilmuttaqina imaman wassalaamu aleykum wa rahmatullah على المؤمنين